Euh, franchement suñu démarrage stage bi premièrement baax na am na intensité et tout ñu ngi def euh, physique en même temps di euh, def tuuti basket xam naa ne balaa semaine prochaine dinañ commencer di jouer entre ñun ñu know di def plus de basketball instant parce que le moment dañuy def physique bi la ñuy gën a travailler pour le moment ak ay tir so euh, personnellement man ça maa ngi santé sama bopp parce que depuis loolu toogu mat aussi damaa ngi doon continuer def samay entraînement donc euh, instant yi gis naa ne intégré naa groupe bi instant yi man je me sens bien aw ma problème man j'ai aimé ah le fait que ma toog un an joué ma ko parce que permettre na ma sama yaram noppalu bu baax instant yi je me sens très fraîche et prête non ah, loolu après afro basket bi la woon bi ma demee sama club parce que mayu ñu ma repos dama ñëw dimanche après dellu lundi ñu commencé ma entraînement matin soir 10 entraînements match avant repos donc je pouvais pas tenir loolu parce que su ma am naa expérience gaañu naa ñaari yoon def naa ñaari opération au genou ak ne xam ne lii su ma si blessure la jëm après je préfère arrêter me retirer ñëw Sénégal noppalu benn un mois janvier bi si des janvier ba avril après dama ko dem jouer Espagne. loolu du ma si commentaire parce que at the end of day coach mooy def listam moom mooy convoqué donc man ci focus. bu ñu ma woo coach ma boole ma ci liste bi c'est à moi de prouver que ne you am naa sama talent ba tey maa ngi physiquement je suis prête à rejouer pour une donc je pense que loolu rek mais lépp commentaire li nit ñi wax man ça regarde pas franchement. non c'est une source motivation je pense maa ngi doon continuer def samay entraînement régulièrement donc je pense pas que ne instant yi benn pression wala am naa dara lu may wax il a confiance en moi donc loolu daf ma sas donc confiance boobu dama koy def tout pour bañ ko décevoir. rien n'est impossible parce que podium mën na nekk première comme deuxième mën na nekk troisième comprendre nga mais dañuy wax podium mais you know dañuy pour gagner. parce que dañu nekk fii dugg regroupement entraîner bàyyi suñu itte yëpp entraînement xam nga dem pour rek ay participation wala leneen donc si on dit on vise le podium on vise. su ma foogul si douze yi of course dina ma métti you know parce que like I said ñëw ma fii bàyyi sama yitte yëpp di sa di ñàkkante entraînement yi pour juste you know pour le plaisir de juste d'être présente so yeah euh, am na expectation you know bokk ci douze yi so yeah di ñaan yàlla yàlla ko yàlla def. Euh, pour ñu retrouver moom déjà foog mu am que comme ni ñuy wax rek gagner culture la. foog ñu am commencé gëm ne ne mën nañ dem mën nañ gagné commencé installer culture boobu encore parce que euh, ñu teglee année ñu teglee di ko gagné dañu amoon culture u gagné dañuy ñëw ak objectif a xam nañ ne dañuy ñëw pour gagné donc je pense que mentalement suñu commencé you know installer loolu suñu mind xam ne ne ok now it's dañoo war a get back you fi ñu nekkoon comme euh, ak mentalité esprit gagné ñun ñëpp ñu booloo doon benn ku nekk mu bañ am sans pression ko li now ku nekk ñëw wane li nga mën jàppalante on joue en équipe avec l'espoir de gagner so euh, franchement euh, ñëw Sénégal jouer championnat local bi instant ah bokkagul projet pour le moment donc après basket on verra si you know damay retourner jouer ou li am daal yàlla rek la pour le moment j'aimerais focus afro basket bi <laughs> non rab bi moom gars yi gis naa ñi naan dama bàyyi basket dem focus carrière rab loolu yëpp ay wax la rek dañoo bind lu leen neex man rab bi benn son la woon te sa dama amoon envie def ko c'est juste pour jouer man maa nit koo xamante ne aw ma limite su ma sentiree def dara dama koy def so c'était juste pour jouer pour m'amuser benn été la woon rek pare nañ ci pare nañ ci mais sinon sama priorité c'est le sport